asalaamaaleykum sëñ Xaadim yéen journaliste si maa ngi leen di nuyu man Ndeye Maimouna Thiam maa ngi dëkk fii kër baay mbay Baye Mbaye Thiam taalibe sëñ Abdou Balla Faali Jang ndox mi sëñ Mountakha ñaan na ndox mi baa waan na xéewal gi ñëw na waaye suñu kër gaa ngi nii ay tëgg lañu nag man fii nga ma gi sa yaay ji ba tamit neexut waaye gis ga suñu kër gi sunu mat laay yàqu na sunu sunu lal yaa ngi ni ñuy jóor sunu bagage yëpp a yàqu ñu yor ay xale yu ndaw biig biig taw bi commencé ba tey nelaw ñu suñu néeg yi seen sunu néegi daal yëpp a yàqu gis ngeen yi sunu ceeb baa nga ne lépp yàqu mi ñu utoon sax pour tam xarit lépp a lépp a tooy sunu xat yi doom yi sax yëpp a dee ci ndox mi waaw xam nga ne loolu metti na ñu leen di ñaan dimbal di ko ñaan président ak yéen ñi nga xam ne yéen ay journaliste yi ngeen jàppale ñu dimbali ñu ay jigéen lañu ñu dara amuñu dara borom kër gi ñu fi nekkaloon borom kër gi gaañu mbay caam taal bi sëñ Abdou Dieng Balla Fall ñu ngi leen di ñaan nag lii ngeen wax ñu canal bi moom su ngeen ñu mënoon a dimbali bañ jëlee ko fi at mu jot ñu génn nett ñu sun bagage yëpp yàqu nañ situation yàgg ngeen ko dund fii yàgg nañ koo dund dund nañ ko lu mat juróom benn génn ngi ci génn bi xam nga ne loolu neexut suñu néegi yàqu na daaw bi ñuy bëgg a màggal gone yi seen i teg lañ teg ñu defaraat defar lu ne peinture def lu gis nga kër gi ni mel duus yi fees na te xam nga ne doole jigéen raay doole saxaar góor waaw mën na ay taalibe murid a ngi xaar ay taalibe seen mbokk yu fu ñëw fu ne lañu war a a ñëw waaw te lii bu dakkul ragal ngeen ne yéen seenu màggal man ngeen wax seen i mbokk ñu toog mi ngi noonu waxuma la màggal sa tamxaar xam ngeen duñ ko fi defee suñuy gan ñi dañuy jógee Banjul ñi jógee Kaolack ñi Dakar taalibe sëñ Abdou Dieng Balla Faali lañu te xam nga ne lii bu dëkkut xam nga ne duñ màggali ci kër gi suñuy mat laa tooy na suñuy lal yàqu na màggal lu ñuy tal màggal xam nga ne lii metti na trop ñi ngi koy ñaan nag yàlla ak yonent bi ngeen jàppale ñu ci jàpp leen ci lii na wax ji dem ba ca sëñ Mountakha xam nga ne lii metti na mënuñoo at mu jot ñuy jàng-jàng ak sunuy doom xale yaa ngi ni seen yaram yëpp ngi tàng te jamono ji neexut feebar bi bari na te la yàlla xam doy na amuñu ci benn yaakaar daal li tax ñu woo leen ngeen jàppale ñu ngir yàlla ak jëmmi sëñ Mountakha moo tax ñu woo metti na lool ci ñun. lu leen dal xanaa kër yu fees del rek akum kër yu fees del yéen a nii waaw a ah, wax dëgg yàlla li bëgg nañ ci ndimbal lool bëgg nañ kuñ ci jàppale lool te bëgg nañ bëgg nañ tamit lii mu jot ci sëñ bi nga xamante ni mooy borom Touba ah mu jàppale nu defaral nu suñu koñ bii canal bi ci boppam at mu ne mu yàqal loo xam ne kenn xamu nu mu toll waaw ndax bu dee ay portable yëpp réer na ci biir kër gi ci ndox mi a ah, xaalis nag waxi nopp ah lépp a ah, maa ngi nii bi may ñëw dama ànd ak samay xale ci bi ma ñëwee te ma dara lu taxaw di xool dong waaw waaye nag yàlla ba suñu dëkkandoo yi am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla dimbali nañu ba génneel nañ ñu ko waaw yéen yée ngi ñu teg dugal ci kër yi yée ngi ñu acc ci kaw bi sonn nañ lool bëgg nañ ko ñu dimbali